loolee mooy ay digleem moom nag mi ngi dalal xelu taalibe leen xamal ni ñaanu sëriñ tubaa yëpp daal nay nangu ba noppi di fàttali taalibe murid yi nañuy saxoo liggéey ak jaamu yàlla sëriñ Bass Abdou Khadre yor kàddu xalif général des mourides moom nag mi ngi woo bépp taalibe murid ñu daal di tënku si digle yi nga xamante ni sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke di xalif général des mourides moom la diglee atum ren nag mooy téeméer ak fanweeri édition bu grand magal de Touba ubbil bii di 24 heures yéene kaay moom dellu siwaat na ci démb xalif général des mourides sëriñ Muntaxa Muntaxa Basiru Mbàkke ba muy jàkkaloo taskat xibaar yi kàddu yi mu yëkkati 24 heures ne xalif général des mourides mi ngi digal taalibe yi ñuy wàccee kaamil fu ñu toll ba noppi tënku si yoonu njub di jaam yàlla fu ñu toll sëriñ Abdou Latif Mbàkke moom mi nga xamante ni moom mooy teewlu ba noppi mooy jiite bale ginoo bale dëkk bu sell boobu la di nga xamante ni fan yi di ñëw rek na dalal lu ëpp ay millions ngi doomu aadama ci màggal Touba gi ni amal téeméer ak fukk ak juróom-ñeenti agent yónni nañ leen ci Touba ngir ñuy puudar dëkk bu sell boobu ba noppi nag bépp lekk bu bon wala bu périmé yu ñuy jaay ci dëkk ba ñu daal di koy ramas daal di koy taal ca jamono jooj nag enquête yéen i kaay dellu siwaat ci jafe-jafe yi nga xamante ni nag këru tasukaay xibaar yi moom la nekkee fan yi entreprise de presse yu bëri ñi ngi ciy jafe-jafe moo tax kap démb daje seen biir li ñu bëgg moo di ñu jël ay mesures yu gaaw a gaaw ginnaaw bi nga xamante ni ñaari journaux yii di stade ak sunu làmb ñoom dakkal nañu seen liggéey Mamadou Thior di njiitu koret bopp daal di indi transparence ci sunub liggéey Alassane Samba Diop di DG E-Media ci jamono jooj nag moom nag nee na naqar ak njàqare tiis la am li ko waral moo di presse bi mi ngi ciy jafe-jafe nekk ci yoonu faatu ñu toog di ko xool nii te jéemuñu ci dara nguur gi nag xoj na entreprise de presse yi journal bii di Le Quotidien yéenekaay moom moo ko xëyee tey ndaxte neena na ñu leen di fayloo ay fisc téye seen aide à la presse ba noppi nag këru taskaa xibaar yu bëri ñu daal leen di yónnee ay mise en demeure ginnaaw bi nga xamante ne nag stade ak sunu lamb yëpp tëj nañ kap ñi ngi artu ubbil journal bii di Sud Quotidien nee na compte bancaire këru taskaay xibaar yu bëri tëj nañ ko fisc bi tamit sonal leen loolu ñu dakkal yenn convention commerciale yi presse bi nag ñu ngi ci booru nërmeelu bu ñu sukkandikoo si Sud Quotidien coordination des associations de presse di CAP ñoom nag ñi ngi ŋàññ bu baax presse privée bi nga xamante ni ñu ngi leen di xooj ak a sonal leen ba jamono ji nag ñu nekk ci ay jafe-jafe yu méttee métti kilifa yu bees yi nag ñoom lañ joxoñ baaraam tuma les éco yéen kaay dina xamal ni nag fisc bi TNT bi ak dakkal gin dakkal yenn subvention yi loolu moo sonal tasukaay xibaar yi te nguur gi nag jéemu ci dara ba noppi dakkal li nga xamante ne nag moo di aide à la presse bi nga xamante ne ñoo doon dimbali presse bi presse bi nag dañ ko pressé fu ne patron de presse yi ñoom nan dajee gannaaw ëllëg di àjjuma ngir waxtaan seen biir kap nee na lii bu dakkul entreprise de presse yu bari danañ tëj Cheikh Niass di njiitu wal faj fajri moom nag li mu xamle moo di kër gi nga xamante ni moom lay jiite di wal fajri ñi ngi ciy jafe-jafe rawatina ñu yokkaatal leen yeneen jafe-jafe moo tax nee na moom dina ubbi li nga xamante ne nag moo di kaptaalam ca jamono jooj nag may mun a nduur fay di njiitu ñuy indi ay leeral ci télém bi nga xamante ni fan yi yëpp moom la ñuy jaabaa jonge ci dëkk bi te nee na fan yi di ñëw dina déposer ab plainte bés bi la jour ñëwaat ak ñun ci déclaration politique général bu Elimane Diéry Ousmane Sonko journal bi ne déclaration de politique générale le dara leeragu ci mu ñëwaat ak ñun ci tas gi nga xamante ni war nañ ko tas assemblée nationale njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar fay moom nag mi ngi jël temps te prétexte yi nga xamante ni nag moom lañ jël bokk na ci emploi de di Ousmane Sonko Elimane Diéry bi nga xamante ni nag dafa chargé loolu fekk finalisation projet wu Pastef bi lee Abdou Mbow ca jamono jooj nag muy génn dina xamal ni assemblée nationale bés buñ ko tasee parrainage bi dina ami jafe nga xamante ne nag moom mooy proposé ñu càmbaraat parrainage bi ak financement parti politique yi tasub assemblée nationale dale yooyu nag moo indi ay werante ci biir journal bi di l'observateur Abdou Mbow di njiitu groupe parlementaire bu benn Bokk Yaakaar moom nag am na ay laaj yu bëri yi nga xamante ni samp na ko te loolu nag géré lu bëri ONAS bu nu sukkandikoo ci journal bi di l'observateur le soleil yéenekaay ca jamono jooj nag mu ñëwaat ak ñun ci autosuffisance alimentaire ne de sécurité ñeel wàllu woowule ñu jeexal ka tàggat yaram ak Rewmi Sport JO 2024 400 mètres Cheikh Tidiane Diouf moom éliminé nañ ko ginnaaw ab record bu am solo bi nga xamante ni def na ko journal bi nag mi ngi ñuy wax tamit Balla Gaye mi nga xamante ni lànk na ba tëdd suuf nit du dem wuy ji mukk CNG bi nga xamante nag da ko convoqué laaj nag samp na ci biir journal bi bi di réew mi quotidien ñu jeexal kaak record yéene kaay wax ci Mori Diaw mi nga xamante nag doomu sénégalais bii di football foofee ca Marseille jamono ji nag Nantes ak Lens di ñaari équipe France yooyu ñoom ñoo koy xëccoo les échos yéene kaay ñëwaat ak ñun ca jiyee ji xew ci États-Unis benn sénégalais lañu fekk ci këram mu faat ñetti doomam ba noppi xaru da ngay seet lii rek Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñu leen doon may seen